Siewa Régie ak sunuy partenaire doore ko ci KP KP gis ngeen ko noonu la ci publicité bi avantage yi mu indil euh, client yi bari na sunu kalpe def leen ko seen yëfi bopp àllaaji loolooy dëgg KP moo leen man bokkut ak ñoom nuróowut ak ñoom bokkut ñoom i feem du seen morom moo leen gën teyit moo dëkk ci réew mi ñi dëkkut nañu leen delloo ca seeni réew ñu dem fa di fa envoyé kii te xam ni fii KP mooy boroom li nga xam ne moom la ñuy wax euh, ànd bi kon bokk mu fa fekk fil la nga fa laxoo ak. <laughs> ay ci ak solution solution mi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci miim réew démb rek damaa taxaw buntu wal fajir soxna si solution laay laajte man ko xoolal ne ci kaw. man nga ah, noonu voilà noonu la. muy daal ñu rappelé waat gars yi nii da mu ngi jàkkaarloog wal fajiri boo jegee tali bi rek mi ngi noonu solution ngi noonu et cetera seen aajo fajo bu ngeen dikkee macha ci kàttanu borom bi seen aajo daade dee fayu ndaxte garab yi nga xam ne moom la ñuy jaay sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoo ko waxal seen bopp wéral ko daal ne garab la yoo xamante ni bii mooy yi gën. waaw mhm. parce que biñ dikkee nag ba nëgë ni li tax solution juddu. tappale gi daf fee bari woon lool waaye bi mu dikkee ba nëgë ni macha allah gars yi même bu ñu góorgóorlu defe naa ñi ngi jéem a jubal rang yi te xam ni ku fi dëngal li rang boo xam ni da nga yàqu ku am garab bu mën a faj. góor ba mu wér pëlëg. tàllal na la loxo. tàllal na la loxo ah, waaw bokkul góor ñi di naan am kàttan. waaw wala yéen solution définitive yi ngeen di laaj koo xam ni am na ko. da ngaa demoon da nga doon man da nga man dafa am ñoo xam dañu doon man ba yàgg mënatuñu ah. ñu tëlee dafa am ay sëriñ ñuy wax ni mën nañ koo faj bu mu wér mm. ñooñu la ñuy wax ni nag kaay leen fii ñu liggéey mais yéen balaa ngeen di valider garab da ngeen koy test ah, am ngeen ay am na waa am na ay ah, kobaay am na ñoo xam ne joroon nañ def naa alaaji am na ku mu ko joxoon ñu ko joxoon waaye am na koo xam ne woon na xuyu tuuti waaye dana at kamañ <laughs> ko jëlee nee na nee na xuy nee na daf ne moo tax ñu daal di ante garab ko waa ji la wax nit da ngeen koy ah. testé. lii dañuy testé lépp ah, la bëggoon ngeen wax ngeen wax ma turu ko bàyyi fii ci plateau bi mais non nekkul fi non non nekkul fi non nekkul fi kër gi sax nekkul solution de exemple dafa am ay nit yoo xam ne dañuy ñëw ci boutique bi demandé ni dañoo tëlee ma xam leen ah, waaw de moom tuddee ko bàyyi ay ñu ngi leen di jaajëfal mi ngi noonu egsi leen ba fii rek eh, seen newoon na xuy ma jigéen Diop Dieng Sall maa ngi lay nuyu di la ziar yaay Mamadou Moustapha maa ngi lay ñii maa ndogal ci réew mi dama leen di génne ah, dina ma am de ak Assane mu toppaale leen. wallaay <laughs> <laughs> maa ngi lay ziar bu baax a baax. ajaratu di la ñaanal nag jam ju sax dàkk di ko ñaanal Omar te koy nuyu di ko ziar. di euh, mhm. nuyu Sanjo bu Meng ak euh, son yi bu Diop. Mhm. nuyu nag téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp dem ba diwaanu Thiès kay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ajaratu nag may ñaanal sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke yàlla mhm. suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd weer defal ko jàmm defal ko njabootam. si biir këram koy ñaanal mboolem xalif ci biir réew mi yëpp <laughs> mi ngi noonu sëñ Seydi ñu ngi koy ñaanal baax Serigne Sa Ndiogou xaritu macha allah ayca ñu dem euh, jëli victime du net. bu loo wax ci nabu Dash. Adja ñu ngi lay ziar baax euh, gannaaw ba ñu nuyuwaale rek kilifa gi Serigne Moustapha Sy ñaanal ko mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér di ko gën a ñaanal rek si dafay seetaan émission bi le nuyu waale Cheikh Tidiane Sarr Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla jàmm Adja Nabou dafa attaqué ñi gën ci réew mi ñi gën ci réew mi muy sëriñu daara yi man nag du man maa ko wax yàllaa ko wax ci àdduna bi laa bëgg a wax yàlla moo ne ñiy jàngale alxuraan ñoo gën ci àddina bi ñooy nit ñi gën xayrukum man taallama alxuraana wa allamahu yàllaa ko wax ñooñu nag la nabu ni dafa am ku ca nekk Kër Masaar di jàngale jàpp ay gone di def naka sudul noonu yëkkati na kàddu yi nag kàddu yi laa bëgg ñu àndandoo dem seetaan ko bu ñu dellu see xool waa aar daara ñuy yëngu ci aar daara lan lañ ci def ñu dellu si waat Moodu ak taxaw sëriñu diine bu ma ci gisati gis nga daara bii nii Kër Masaar la nekk dinaa dem ci daara bi dinaa fa def vidéo man dinaa dem ci daara bi sëriñ bi foo nekk dinaa la gën dinaa la vidéo dinaa wone wane dinaa sa kanam parce que ku ñàkk fa ne ku yow yaa ngi doon sëriñu diine boobu xaw ma loo doon xaw ma loo doon heureusement que xaw ma sa tur bu ma xamoon sa tur weer sa photo fii laay def yow yaa ñàkk fayda yow gisoo caga ju mag ji yow gisoo caga yi taxaw fii booy caga yi di cagatu ah ñoom rango gu fi xanaa gisoo rango rango ngi fi doo dem ci ay rango ñoom rango xam ne hôtel yi la ñuy fanaan foofu la ñuy yem dara dafa safuñu dara safulee dara kiiwulee ah yow xale yi ndaw ay quatre ans cinq ans nga jàpp tiim leen ci pa màggatum pa yor sa kurus na yor sa grand boobu naan damay jàngale dina jàngale dina ak simmi xale yi loolu la loolu lañ sant simmi xale yi lañ la sant ni parent bu fi ñàkk fayda ba jël sa doom bu jigéen jox ko sëriñu daara barki Seydina Mohamed li nga loo ci am du la neex te leen seeni doom attrapez vos enfants bëgg diine jarul lii diine gi jaratul lii de jaru ko de diine gi moom fi mu nii diine gi moom jaratul yóbbu sa doom internat caga ju mag jaa ngi fi caga ju ndaw jaa ngi fi ah fa Faatumata Fuuta Tampi mi ngi fi rangu mi ngi fi yéen xanaa gisoo leen caga ji rangu ak Faatumata Fuuta Tampi ñu ngi fi sama baat ci kaw ah te tontu ma benn classe je n'ai rien à foutre man gisoo leen ñooñu xale yu góor yu ndaw ay xool leen xale yi quatre ans trois ans am na koo xam ne dégg naa ba mu amee quatre ans la ko violé ba quatorze ans. voilà kii mooy Nabou Daas ginnaaw bi ñu te kàddu yi nag oustaz Makhtar Sarr sax moom nee na jëloon naa euh, jël na numéro téléphone am woo ko ngir daal doon ut ay information ci li muy wax mais ndaw si sax amu ca woon ay preuve gannaaw ba nag la ko coupé nangootu ko jël téléphone kon ñoom aar daara nag dañu yëngu lépp lu jëm ci wàllu aar daara ak information boo ci wax te du dëgg euh, la ñu dem ci table procureur jébbal ko pelent ñu dem dellu siwaat li waraloon jéego yi nag mooy ñëw doon déposé ci plainte plainte boo xam ne ñi ngi ko jëmee ci Zeynabou Kébé mu gën a siiwee ci Nabou Daas réew mi da réew moo xam ne république la nu nekk république nag moo tabaxoo noo xam ne kenn du fajal sa bopp. dañ di ay sëriñu daara di doomu daara di ay woy woyjuru ndongo daara. nabu Daas def laayifam toog. la gën a tuuti ca la mu wax mën naa ne saaga woy jur la saaga ndey. jëmee ko ci sëriñu daara yi beneen pelent plainte dooleeku ci boo xam ne individuellement la Makhtar saar moo ko signé ci turu daaraam di daara da baax plainte yooyu lañ indi woon tey déposé ko fii ci tribunal bi beneen pelent bi incha allah bu nu jógee fii mi ngi jëm cybercriminalité ndaw si dafa tooñ tooñ gu rëy sëriñ daara il faut ñu xam ñooy ñan Nabou Daas dafa def ay révélation yu doy waar jamee ko ci daara yeeg sëriñu daara yi loolu nag réew mu ma am procureur war na jug taxaw autosaisir maanaam ñun waruñu war a ñëw tey ci tribunal mais procureur moo waroon a autosaisir woolu Nabou Daas Seras ne ko preuve yi nga am ni wax ma ko ndax preuve yi mu wax ne sëriñu daara yi lii la ñu def loolu bu fekkee ne moom am na preuve yi mu wane kuréel yi fi taxaw yëpp ñooy mànkoo ne procureur daral ci kaw ñooñu di def lu mel noonu. lim tuumaal sëriñ daara yi làmmiñ lott na ci tudd ko am na ci loo xam ne mi ngi ci plainte bi danañ leen ko jox après. bokk na ci yooyu rek wane ne sëriñu daara yi lépp luy lu bon ci diggante góor ak jigéen ci njaaloo ngóor jigéen sëriñu daara yi ñoo ko tasaare ci Sénégal. léegi nag li ñu dul nangu mooy jël baat boobu noonu léeg taxe ko sëriñu daara yëpp ne sëriñu daara yi loolu la ñuy def. te weñ laa la bu tàbbi ci biir soow la du ñu tuur tuur mi mais dañuy seppi weñ wi sànni ko mi ngi noonu kooku mooy oustaz waxtaar saar moom ak imam Babacar Sylla consor googu saa yoo leen gisee seen tànk ya poussière seen yeel yi poussière rek bu leen laajte ci mission wu diine la ñu ne mooy poussièreal seen i yére di poussièreal seen i mbaxana di poussièreal seeni i yeel en tout cas loolu ñuy eh, jëfal diine yàlla yàlla fay leen ko Omar waaw ay tànk laa ji jublu. ay jeunes ay ay jeunes lañ non eh, Sall ay jeunes lañ rek yeel mooy tànk quoi loolu laa jublu <laughs> Omar lii la ñu indi ñoom euh, Oustaz Makhtar waxtaan na wax na ko nag maanaam nabu bu yemoon rek ci vidéo ba mu gis amaana du am jafe-jafe mais cee dolliwaale ay bu leen yóbbu seen doom yi ci daara yi ndax diina ji moom jaratu la yóbbu sa doom ndax diina ji moom dara nekkatu fi. léegi nag naqari na waa aar daara dem nañ jébbal procureur ab plainte daal ngir mu lijjanti lii nabu wax ba xam am na preuve. Mm-hmm. waaw uh, yére bi rafet na. merci ah, beaucoup sànq doon trouvé mais tey moom macha <laughs> allah. ñoo bi rafet na baax na mi. waaw ah, sànq yaa ngi wax sëñ Moustapha dafa am benn waa uh, seen benn taal bi xam ne Kër Massar dañ fa bari mais ci Angleterre la nekk Younus Fall. Mm-hmm. Ah, moom moom taal bi sëñ Moustapha bu mag la. ku am taxawaay kilifa la mag la. macha allah ñu ngi koy nuyuwaale bu baax baax xam naa boo koy tudd xolam dina sedd. tabarkalla léegi nag bu dee nabu moom. <laughs> Mm-hmm. ay mbiram lu. problème la. Hmm. Nabou moom ci boppam problème la. nee nañu wérul de. waaw parce que injure publique déjà bu xamul li xew nit warul def injure publique. kenn waxul li mu wax dëgg la wala du dëgg. mais la fait rek publiquement mu ñëw tax ci biir loolu li ko ci mën a fekk kenn xamul mu doon. ok mi ngi mel ne bi fi ki ki fi daw génn réew mi Gambien bi. kan la. waa ji kii rek fàttali naa turam jàpp moo ko. góor la wala jigéen ku góor ki. ah Ahmed Cissé waaw waaw Ahmed. waaw ah, boo xoolee bi ko gars lu mënoon na rëcc ci lu bari mais li mu mujj a def looloo ko gënoon a sono mooy injure publique bi. Mhm. loolu daal li Nabou di def nii xaw ma xam na ko xaw ma xamu ko mais bu dee ni xamu ko nan ko ko xamal mu bakku. na amul mbokk nag. waaw ah, bu amoon ay mbokk pour man dinañ ko téye. waaw mhm. ah, parce que am na lu fu mësoon a xew ba ñu yóbbu ko dalal xel. waaw waaw ah, lu ko delloosiwaat si nag xaw ma xel may dal léegi am déet. ba mu dellu si mais comportement man daf may xaw a. heurté le fait que mu mun a toog publiquement di wax yenn wax yi kon kooku war na nañu xool moom mooy kan te njëkkawul ci wax lii rek tey da ko dóor ci daara. Mhm. mais xoolal ñi mu tudd rek. waaw di ay nawleem. Mhm. ñooñu rek buñ ko toppee mën nañ ko daaneel. parce que mhm. da leen waxal lu mënul indi firnde. si ak luñ mën a doon. moom warul toog publiquement di ko wax. léegi nag internet. man dama këm internet moom internet man dama jàpp ni moom lu baax ci àddina la. mais fenn rek la xaw a yàqee. mooy daf ci am nit ñoo xam ne tey bu internet amul woon. même seen réunion de famille du leen jox kàddu. waaw bu doon seen famille ñooy daje. Mm-hmm. ñoom dañuy nokk di déglu ba famille bi décidé. dëgg la ñu leen ni lañuy ñuy doxalee. Mm-hmm. bu dee ni ci télé. nit ñemu leen invité du leen jox kàddu wala ci rajo. déedéet. mais internet. pour man danger bi mu am mooy ñu mel nii. ñoo xam ne tey ñoom noppi rek moo leen war du leen jox mbooloo ci néeg du leen ko jox ci penc du leen ko jox ci ceet du leen ko jox ci ngénte parce que seen i bokk da leen i xam léegi internet may leen ñoom ñu mën a wax mooy indi dérive yu mel ni yu nabu daas yi du nit ko dëkk micro di ko poser question <coughs> mais nit la ku toog di wax di délirer di wax du n'importe quoi léegi nag li ci ñoom Matar Sarr def li ñu war a def lañ def <coughs> parce que bu demee waxuma la dal ci daara wala mu wax ci daara mais bu demee ba moom dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman mhm. ngay inciter nit ñi ne bu leen yóbbu seen doom daara. macha allah maanaam loolu. ayca moom wax mënul weesu daal ku nite daal. war waxe noonu ayca mhm. mu mel ni fi Omar daanelee euh, loolu ñu bari loolu la ñuy wax ma jigéen ni ndaw si wérul mais nag ku dof la boo xam ne am na crédit am na connexion te itamit ni muy traité ay sujet traitement bu baax lay doon mais des fois nag mu def ay dérives. wax dëgg yàlla sooy bu nabu moom kàddu yi ma ko dégloo man yàgg naa ko déglu muy wax ay bêtises nag mais eh, yaru daal moom seet naa ba seet waaye xam naa ne def ko hmm. ndax nit ku yaru ami teggin même su fekkee problème am na yàgg na ñuy wax eh, si problème yoo xamante ne nii eh, dañuy wax nit ki kat doomu daara la te teewul ba ñuy wax tudduñu ñëpp dañoo jël nit ka rek la mu def ñu àtte ko ca loolu wala peut-être ku ko cay jam nga jam ko ca la mu def mais soo bu fekkee ni danga nga bëgg jël benn problème bu am nga bëgg jël ñëpp laax leen ci loolu day nekk loo xamante ne nii euh, day doy waar surtout nag soo demee ba ngay wax ni nit yi bu ñu yóbbooti seeni doom ci daara te chaque jour nga gis euh, nit doomam wàcc alxuraan wala peut-être ni ñuy wanee daara lu muy def euh, ci koor geek ñi ñuy taree alxuraan loolu day inspirer nit yu bëri pour ñoom tam seen doom yi mel noonu mais tey jii taxawee wax lii ba tudd si ay ñoo xamante ne ni ay jàmbur lañ mm-hmm. même lu ñu mënti def lu ñu mënti melit ñoom ñoo yem rek parce que moom ku nekk am nga sa problème am na lu ko doy ñooñu ni ñu amee lu leen doy ba nekk si seen ruq ay rangu rangu rangu moom ñëpp xam nañ ne du tooñ kenn waaw rangu du tooñ kenn waaye xam naa ne bis bu jotee si lii dina ko tontu na réglé te defaraat ci toggaayam instant bi nii tey ji nii su ñu jëloon yóbbu ko police rek ay mbokkam génn fële ne waaw wérul nañ leen ko comprendre dafa amee xel ak yooyu noonu loolu si jëme boppam lañ ci war a bàyyi du waaye jóg rek mm. te sa xel na ci rek nga wax ko son yi bu ci macha allah jërëjëf Adja ma jigéen mu ngi fàttali sax dafa mel ni wax na ba tudd ñaari jigéen yoo xam ni histoire bi concerné wu leen muy Rangou ak euh, Fouta Tampi ba am yu leen tudd. Mm-hmm. waaw waaw na ñaar ni mën a delloo yekk de. Rangou moom li kiy wax man duma ko gis ci internet bi muy live wala muy am yu muy def ak yooyu. Rangou day live. non <laughs> man rarement laa koy gis. bokk rarement de laa koy gis. am na ñu guddi di ko seetaan. non non man man rarement laa koy gis vraiment. ba ñuy capté euh, kilifa yi ko daan seetaan. waaw mais mais xam nga. waaw ba tey <laughs> waaw d' accord. man boog mosuma ko gis muy laay ah, mosuma ci dal aussi ci laay bam wax dëgg yàlla. Hmm. te te nag du tooñ boo ko tooñee nag moom di nga ci bëgg génn mu tëla. Hmm. Fouta Tampi aussi moom dina fay yoo xam naa ba wis ko loolu ñoom la ñoom la engagé rek. Hmm. parce que bu sañee toog ci internet bi di leen traité de. loolu mu wax. wax dëgg yàlla euh, ma xam ne am na fit euh, nabu nag. man man man bu ma doon bu ma doon waajuram wala dara dama koy tere tuuti eh, réseaux sociaux yi. tere nañ ko parce que parce que ko ko tere. problème moom bu njëkk bi ñu ko téye woon. waa tere woon nañ ko. xam nga te xam nga. mu ni moom moom téléphone am am connexion. waaw xam nga yaa tere tere xam nga temps yii passé moom moo toog ci internet bi di expliquer feebaram ba expliquer dëkkam bi mu demoon ba faju fa ba dellu siwaat moo toogaat explique sëyam expliquer divorce am wax waxu doomam gis nga man dama ni nit ku ku ku ku ku ñi lay seetaan ñu ci bari bopp étalé wuñu seen vie ci internet bi étalé wuñu seen vie privée ci biir internet bi mhm. muy rajo yeeg télé yeeg ñëpp lay wax ñiy dem di étale seen i problème nit ñi di ko tegaat mhm. ñu koy déglu toujours damay wax ni xool leen ca ñeen koy yóbbul mosoo ci dégg kenn mu wax vie privée am wala te pourtant boo demee kenn ëpp leen problème mais mhm. mosoo dégg ñu teg ko ci rajo ñoom di ko waxtaane donc am na loo xamante nit ñi ñoo ci war a yeewu na bu nag lii mu def jekkul rafetul parce que mën na wax la mu xam ca sëriñu daara mhm. wala boog ñu yónnee ko photo wala vidéo mu wax ko mais nag bu mu généraliser parce que bu yëpp ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër d'accord waaw xaritu sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke di xarit ci sëriñ daara yi laa ko doon wooye mhm. sa xarit yi nag am na lu ñu teg ci seen ndodd maanaam ni daal bu leen kenn yóbbaliti gone yi ndax dañ leen di def nangam ak sàngam mhm. ba am ku ñu wax ni Kër Masaar la nekk def na nangam waaw xam nga euh, à chaque fois son boobu bu ji nga gis daara def ay performance yu am solo mhm. ñoom seen yoon newu ci duñ ci wax mhm. façon yi maanaam duñ ci sax expliquer mhm. maanaam am na ñoo xam ne parce que loolu mooy tax waa daara di mer balaa ñuy wax ci daara rek dañoo dégg lu ñaaw ñu généraliser daara yi te fekk duñ wax benn performance boo xamante ni daara mi ngi koy def dem nañ ba ci ay dëkk arab yi di fa jëlee ay coupe du monde ak lu ne def nañ ko mm-hmm. di tari alxuraan di def mbir yu am solo doo dégg benn yoon ñu rafet lu mm-hmm. mbirum daara yi di apprécier lu jëm ci wàll daara mm-hmm. léegi nag bés boo déggee tell fenn rek ñëw taal sab live bu daa dee wax li ngay wax parce que li ngeen ne dafa dof man dof gi euh, gëwuma ko quoi parce que li tax gëwuma ko mooy biñ ko bi ko Matar Sarr woowee dafa génnaat changé ne waxuma ñëpp waxum waaw ñi may woo ñi ngi may kii maanaam doo xam loolu quoi quand di di orienté waat di jubbanti ah bu doon dafa def day gën a téeléeral waaw di jubbanti quoi ah bu doon def ko day téeléeral ah waaw dafa dafa war a continuer di téeléeral hmm. comprendre mais dellusiwaat na pour wane ni euh, li mu wax noonu lii ak lii di jéem a jubbanti waaw mais maanaam sax euh, loolu mënatu koo dabuwaat. parce que dafa def loo xamante ni bi hmm. euh, kii la parce que bu fekkoonte ni bi moom dafa am loo xamante ni. Hmm. daf ko gis. Hmm. defe naa ne nekkul ni da ngay régler problème bi yow toog rek. wax ci réseaux sociaux yi. mais da nga am foo xam ni fa nga war a dem. waaw boo demee fa nga war a dem ñu def la ñu war a def. Matar Sarr nee na mbir mi mi ngi ci ay enquête te li muy wax nii yëpp nee na amul journal boo xam ne bind na ko wala kii Matar saar moom reeral na ci yeneen kii mhm. donc nag yóbbu nañ ko ci yoon nañu xaar yoon def li nga xam ne mooy kii bu fekkee ne quant à li ci ñeneen ñi nga xam ne tudd na leen mhm. man bon defe naa ni foofu moom affaire classante la rek parce que ñoom ñoo bokk même. game mais classe li mu tudd dafa garaaw de. dem leen ci diw nangam ña nga ca hôtel yaag ñoom dañuy waxante quoi. ñoom ñoom ah! ñoom ñoom dañuy waaye dem leen ca diw. dem leen te diw dañuy waxante de. mais dem leen te diw. seetaanal seen vidéo yi maanaam loolu. Ah. xam nga tey jii kooku mu wax loolu. maanaam ñoom ñi ñu ko wax. Hmm. man gëw ma ni bon parce que tey suba maa ngi lay wax ne la ñooñu war nañ ko yóbbu ci yoon. mais après. boo xoolee seeni wax ñoom ñooñu. Mm. da ngay gis ni parfois dañuy clashante parce que moom ak euh, kii. waaw dañuy clashante dañuy waxante. Mm. waaw dañuy waxante. ah dañ koy wax yu mel nii. non dañuy waxante ko ñoom seen wax la ñuy waxante quoi. xam nga mais. Mm. fi mu barastiku fi mu jógee. Mm-hmm. foofu la warutoon a dugg. waaw foofu la dugg ci daara waaw parce que dugg ci daara wax ne diine jarul lii diine jarul laa diine jarul lële. Mm-hmm. xam nga loolu dafa mel ni da nga bëgg a wax nitu daal mais te li Matar Sall wax lu leer la bërëb boo dem am na ñoo xam ne ñu ngi def naka sudut noonu. ndax fi mu toll nii promotion kanape yi nga xam ne mi ngi wër ci réew mi dafa tax ñu ne bàyyi leen théâtre bi. déedéet ah ah pourtant am na. wala ndax dafa tax ñu ne bàyyi leen euh, dem di wuti ji liggéey ci kii. jigéen ñaa ngi sonn di bëgg a di wut euh, yenn poste mais dañ leen di defloo ay mbir. Mm-hmm. à chaque fois. Mm-hmm. dëgg la mais ndax dafa tax ñu ne bon bu jigéen wuteeti liggéey. Mm-hmm. mi ngi accident yi taxul ñu bàyyi oto yi. voilà yi taxul ñu bàyyi oto yi ay jafe-jafe am na. bu fekkente ne bi am na ca kamu yam nañ yemale mbir mi. ci moom macha allah tax ñu jël ñëpp daal leen di raatale. xam nga am na tey jii. koo xam ni jigéen joo xamante ne bi tey boo ko waxee problème média day wax ne du ci dugg parce que lii ak lii am na ñoo xam ne daj nañ ci lu ne am na ñoo xam ne jaaruñu ci lool. am na ñu ci àgg sax bu kenn sabootee benn mbir rek nga jël ko rek bëgg a taxal lépp na nii la demee macha allah loolu mooy li nga xam ne jaaduwul jërëjëf kon mu ngi noonu fa nga commencé rek fa lay tëjee wane ni li daara def ci ay résultats buñ ko génnee loon nabu du wax ni bu leen yóbbu seen doom ca daara ya daara li mu produire ci réew mi ci ay nit bu ñu téyewoon seen loxo ci réew mi réew mi de néew ma dina tagga bi waaye lu bari dina fi tardé kon bokk nañu leen respecté ku am sa doom te mën koo yóbbu ci daara yóbbu ko ci daara waaw ku ko man rek yóbbu ko ci daara daara dara amul luy lore li sëñ Tuubaa saa nafin bi laa dara din njariñ lu àndul ak lor moom la daara am macha kon ñu joxoon dig daje ba euh, talaata ak jàmm ah lu foo jëm altine foo ah, ma daare ma moor <laughs> ah, léegi loolu nga bëgg di naxasaale waale <laughs> jeex na ñu ciy nii nag soxna Kiné si mu Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum soxna Kiné ñu ngi lay nuyu di la ziar di sàkku ñaan bu baax a baax soxna si jërëjëf oustaz assan chaque fois dañuy wax sa yóbbante merci beaucoup si Malick ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñu ñu doon euh, àndal ci émission bi di jaajëfal également du côté de la régie El du Modou Diouf Abdou Top Fallou ñoom euh, lay jàlloo ak képp ku fa nekk logistique bi également les deux commercial Aïcha Anne ak Kia maa ngi leen di nuyu bu baax a baax jox leen rendez londi lundi incha allah ci kàttanu yàlla. moom sa bopp moom sa alal yombal solution ñoo leen doon may seen émission takku Show